Euh, actuellement nous sommes à New York devant siège permanence pour euh, mission Sénégal Wow, permanence par nous. donc euh, nous actuellement ici, donc les gens sont là en train de se préparer pour accueillir le président Macky Sall donc c'est ça l'ambiance vraiment est bien. donc amul benn stress buñ fi remarqué pour l'instant tout est en en ordre les jeunes sont venus en pour accueillir le président parce que <coughs> actuellement c'est bien la sécurité est là et tout est correct waaw donc actuellement New York prépare l'arrivée du président Macky Sall waaw xam naa ne bu nalee rien rater incha allah on va vous mettre ci euh, parfum bi donc ay jigéen euh, lañ ya nga xamante ne <laughs> yéen en direct jaspora Diaspora News TV depuis Sénégal et l'Allemagne donc euh, yéen a waxtaan ak les Sénégalais d'Allemagne ñu mm, bëggoon xam exactement lan ah, ngeen jàngatee ñëw président ak ambiance bi ngeen fi gis waaw kontaan rek kontaan bu baax Euh, di nuyu àddina bi yëpp euh, di nuyu euh, sa website bi ak ñëpp ñu lay suivre Euh, di leen xamal ni kontaan nañ ci ñuy président Macky Sall mu euh, euh, président Macky Sall moom àddina bi yëpp war nañu taxaw ne ko jaraaboot ndax tabarkàlla macha allah c'est le meilleur président de l'Afrique du ma wax sax meilleur président du Sénégal mais damay wax meilleur président de l'Afrique waaw ndax liggéey na marqué na empreinte am waa ci Sénégal ba pare la mu waxoon lépp def na ko euh, fu mu fekkoon réew mi euh, président Ablaye Wade fekk ko def na ko fu ko triple euh, ba pare tabarkàlla macha allah tribunal la soxna Ndeye Mada Mada bëgg fàllu jàppal ma jàpp ànd ak président Macky Sall fa yéene fal nag Amadou Ba 2024 premier tour <laughs> waaye yaa ngi en direct sur Diaspora News ñu ngi euh, New York. Uh-huh. tribunal la. Momar Sène. Momar Sène tambour major du président Macky Sall APR. ok man maay tambour major APR depuis ba léegi maa ngi président Macky Sall. fal Abou bu mu doon député kon nag tey bisu tey bii bu ñëwee président lu baax li mu def Sénégal. tey il faut da koy mottali ci tey moo tax mooy bisam bu mujj comme la mu tàggatoo woon ak sëñ Mountakha Bachir la mu tàggatoo woon ak sëñ Mountakha Bachir ne ko tey mooy sama mujj tey tam tey lay mujj fii ci président bi mu doon mu ñëw fii ci New York City ñu xam ne président Macky Sall li fi liggéey liggéey na fi liggéey bu rëy boo xam ne liggéey ko fii liggéey ko Sénégal liggéey ko fu ne kon yéen presse bi bu ngeen ñëwee fii dañuy kontaan ci yéen li ngeen def président Macky Sall ca kaw ca kanam. jërëjëf jërëjëf mais léegi lan nga xalaat ci choix bi mu def dernière minute. muy euh, le choix de Amadou Ba. waa choix boobu mu def noonu. Mm-hmm. maa ngi sax dolli xel di gën a kontaan ci loolu. di yokk cere dolli ñeex. Ah, parce que président comme euh, Abdoulaye Daouda Diallo ah. sama xarit sama rak comme wëlba dugg na. ñëwaat daal jël na ci rang yi topp ci ginnaaw Amadou Ba parce que président Macky doful jële jàpp ko te xam na projet yi nga xam ne moo ko fi bàyyi Sénégal mu xool kan moo ko qualifié muy doomi maire Awa Niang boobu di Ba ñu ngi moom di ko wax bonne continuation ñëpp ñëw ànd ak moom ñu ñëpp ñu bokk ndey ak bàyyi toll